déjà maa ngi nuyu ñëpp présence yu ñëpp vraiment di di rafetlu présence yu réew lës man la lës diwaan ji asalaamaaleykum man la lës comme ni ma professeur yi ma tooñ chaque jour asalaamaaleykum man la lës <laughs> donc lës diwaan ji artiste rappeur donc voilà dëkk Mbaaw from Mbaaw dama koy waxaat ci kaw from Mbaaw na ko gars yi dëkk from Mbaaw rek gars yi dañ may dëkkal Tëngéej wala Kër Massar mais Mbaaw laa dëkk na leer wax <laughs> donc voilà dama am contentement bu baax ci ci participer ci projet bi parce que projet bi li may wax chaque jour continuité wu ay activité yu ñu def la donc euh, man dama jóge Italie ñëw benn benn benn programme bu amoon Italie ak sama samay frères yu nekk foofu juste ma ñibbi si fekk ñoom ñuy def euh, benn benn benn euh, concert plein place de l'Obélisque donc bu doon wax ci sensibilisation ci immigration clandestine donc ma dëkk Mbaaw Mbaaw nekk lieu de départ ma jóge Italie donc dund France donc je suis voilà concerné ci ay ay ay parti yu bëri quoi pour ci wax xam naa ay nit ñu ma jege ñu dem xam naa ay nit ñu lool ñu dem amatuma benn information par rapport ak seen situation par rapport ak ndax ñu ngi dund ndax dee ñoom kenn xamul ci ñoom dara am ñu ma xam ñu dem xam ci yan condition dañu nekk donc j'étais beaucoup mieux placé quoi donc mu nekk projet bu ma intéressé lool parce que comme li may wax rek ñoom seen objectif mooy téye nit ñi ñu bañ a dem ak stratégie yu bëri ñi dañ leen di former ñi dañ leen di euh, voilà ñi dañ leen di financer ñi dañ leen di ñi dañ leen di accompagner parce que dañu dellu si waat man sama objectif mooy tamit téye fi nit ñi mais engrais yi ñoo bokkul téye nit ñi mooy dañu war a fier ci li ñu doon Eldorado bi gars yi dañu gëm lu existé tout donc Europe bu njëkk ba ak Europe bu léegi amaana sax bu njëkk ba melul woon ni ko gars yi di di ñu ko doon jaay donc et dama je je dis tout le temps que ne mën na nekk fépp comme projet bi toog tekki mën na nekk et que c'est possible pour man asamaan benn Europe amul asamaan si féetewul suuf suuf si féete kaw benn asamaan moo nekk fépp te benn bind bi la fépp pour man ñi ko développé ay nit lañu et que c'est pas encore trop tard war nañu mën a gëm ne africains yi war nañu développé Afrique te bañ ko sukkandiku ci politique surtout ma loolu mooy sama combat te ci loolu laay xeex gëm loo waat gars yi seen bopp espoir surtout espoir bi booy dañu dañu amatul repère amatuñu espoir sama combat mooy fexe ñu amaat loolu fexe ñu tàmbaliwaat ci ci seen way ci seen i tànk comme ni gars yi di wax mën na nekk ak 100 francs ak 200 ak 300 objectif la vision la pour man tekki du li ñuy gëmloo du du lu du lu facile du lu du lu rapide donc loolu moo ma dugal ci projet bi ak ak LVIA ñu nekk di di di commencé parce que mbaaw la ñu am benn marée boobu boo xamante ne ñëpp xam nañ ne ay bras de mer la mu nekk ay ay doowu ñu am ñaari Ibrahima lu am doole am forêt classée am am géej donc malheureusement ñenn ñi comprendre ñu utilité bi dañ fay sànni mbalit donc suñu ay activité ci ci ci nettoyage ci reboisement ci aménagement donc ci la ñu xamee LBIA ñu liggéey en tant que partenaire ñoom à travers LBIA def nañu lu bëree bëree bëri donc sama xamante ak LBIA moom ma dugal ci projet bi ñu dem ci Migra Migra nekk benn. Euh, réseautage ñu commencé si réseautage wax na ko léegi ak Matador agriculture dajale ñi ciy liggéey ñëpp ci wàllu sensibilisation immigration clandestine ba ñu aboutir à projet artistique Manak Fula donc noonu la teer démarré ñu def ko résidence artistique bu am solo Sénégal après génn ko yóbbu ko Italie defal ko tournée te li ma ci intéressé ci tournée bi mooy sama m'a permis ma wax ak public italien bi li ma yàgg bëgg changer image de l'Afrique parce que comprendre ñu dañ jàpp ne li ñu leen di wan ci télé yi rek wala li ñu leen wax rek moo fi fa am donc c'était une occasion pour mu wax leen Afrique am na richesse Afrique au-delà de li gars yi di wax du loolu réalité bi lii la mu nekk voilà direct contact direct ak ak les étudiants ak les élèves ak le public dans les festivals et cetera et cetera vraiment projet bi ça m'a permis ma am occasion boobu donc. mais est am nga ci la perception moom laay wax changer image bi déjà sur place damay sentir ne on commence à faire des choses et nit ñi déjà commencé na changer seen vision seen seen seen seen maanaam seen perception sax ci ci ci Sénégal mais ci Afrique de manière générale donc loolu moo nekkoon objectif bi et que franchement Fura tamit nekk artiste boo xamante ne nii vision philosophique nekkul rek artiste pour buzz nekkul pour ay ay de vues mais dafa am engagement derrière derrière la musique te loolu moo gën a dugal ci ci projet bi